ñëw ñuy ndekkee doo ak moom mu ngi jógee euh, Toulouse c'est notre ami euh, Mamadou fal donc Mamadou Ndiaye moom tamit euh, mu ngi ci projet bu am solo avec les jeunes yu nekk ci diaspora bi ñu ngi fii ci table bi di ndekki ak en compagnie de Mamadou Fall moom mi nga xam ne mooy président du collectif des cadres de la diaspora ñoom nag ñi ngi waajal lu am solo dañuy préparer seen première édition euh, bi nga xam ne mooy Diaspora Awards ñu ngi ko jàpp le vingt le 27 décembre 2019 mu nekk lu am solo ngeen ni yéen seen politique mooy ngeen li ñuy prôné li ñu koy waxtaane toujours yeewu leen mooy retour au bercail. ñëw ci sama famille. Mhm. parce que ci DPM ci laa bokk. journée la vraiment et puis di féliciter aussi ndekki li neex na. Uh-huh. vraiment c'est une petite Sopi bi jaar Sopi effectivement je suis le président du collectif des cadres de la diaspora. Mhm. association bi nga xam ni ni euh, ko ŋànk mooy cadre yi nga xam ne ci diaspora lañu bokk. Mhm. ay universitaires ay chefs d'entreprise mais aussi ay immigrés hautement qualifiés. association la boo xam ne ñu ngi ko créé depuis 2011 depuis 2011 ñu ngi prôné le retour au bercail de la la matière grise sénégalaise. Mhm. ku na xam ne ni fuite de cerveau dafa bari. Euh, Sénégal nous a tout donné jox nañu ay bourses jàngi nañu ba wér àll yi jot nag ñibbi si. investir wala servir servir servir Sénégal investir servir Sénégal bokk ci événement. mais mais Diaspora Awards bu ñu ko déggee awards tout le temps la ñuy xalaat ñan la ñuy primé naka lay demee fan lay amee. Euh, Diaspora Awards euh, ñu ngi ko initié pour la première fois cette Euh, sénégalais yi nga xam ne euh, seen xam-xam màcc na ci développement Sénégal sénégalais yi nga xam ni kenn xamu leen te ñu ngi def lu am solo pour développement du Sénégal. Hmm. xam nga li Youssou Ndour wax nii euh, jom mooy tukki waaye fulla mooy si am na ñoo xam ne dañoo am fulla liggéey ba am ay teranga ñëw nag bëgg a bokk ci émergence Sénégal ñooñu la ñuy primé ñu ngi toll ci fukk ñaar ñoo xam ne benn sénégalais mën na laa wax ne diw xam naa ko. kon dañoo def mondial. dem ak le comité scientifique xool Sénégal yi nga xam ni vraiment ñoom seen xam-xam ak seen jëf la na ko. ñu mhm. mën vraiment primé leen lors de la soirée des Diaspora Awards le vendredi 27 décembre incha allah au King Fahd Palace. Euh, lan xanaa soxla nañ critères yi ak ñooñu yan sénégalais la ñu lan la ñuy def exactement ban critère ci ngeen basé pour mën a def awards boobu. collectif CAR Diaspora bi. dafa mettre sur pied un comité scientifique dirigé par euh, l'honorable ou euh, professeur docteur Abdoulaye Idrissa Dieye qui a fait sa thèse à l'université Paris 8 euh, ay kàngam ñoo euh, dajaloo ñu créer comité scientifique bi nga xam ni ñoom na doon saytu sénégalais yi nga xam ni ci diaspora bi lañ bokk te ils sont hors pair bi ñu defee tournée mondiale euh, def ni critère de sélection yi mooy il faut nga nekk sénégalais d'abord am engagement ci émergence Sénégal aussi am xel bu rafet bu sell ci vraiment l' des jeunes. Euh, juróom benn jigéen lañu ak juróom benn góor Mali yamale parité. yamale góor ak jigéen. waaw man na. neex dina neex ñoom. <laughs> voilà donc dañ naan jigéen dafa war a bu ci nekk xam naa ne loolu moom. moo tax ñu respecté loolu. Euh, def naa am na ay jigéen ñoo xam ni ay moroomu bijou lañu. Mhm. seen ñi ngi ñu ngi ci communication am na ci koo xam ni Gabon loo jugee lañ ko jëlee. Euh, elle a moins de 30 ans. elle mhm. fait excellente sur la comme et la mar et le marketing. Mhm. kooku incha allahu rabbi le jour J di ngeen ko découvrir am na beneen dame boo xam ni bene. la nekkoon euh, nekk vraiment entrepreneur vraiment bokk ci ñi gën a développé commerce entre euh, vraiment les états africains am na aussi ñoo xam ni ay docteurs lañ médecins Euh, l'un des plus grands domaine bu ci nekk domaine bu ci nekk bu ci nekk am nañu un Sénégalais boo xam ne tey jii bu ngeen ko gisee di ngeen xam ni kii kat jar naa ñëw nan lañ mën a def parce que ñi nga xam ne dañ leen di primer sélectionné leen lañ leen ba pare mais il mhm. faut nit ñëw mhm. gis ñoo xam ne dañ leen di servir d'exemple pour ñoom tamit bu ñu bëggee lancer seen ay projet ku ci bëgg a bokk ci soirée bi nu muy def soirée bi ku ci bëgg bokk euh, am nañu plateforme te lancé nañu aussi ñu ngi lancé campagne bi incha allah rabbi suba la campagne de de com va démarrer et ku ci bëgg a bokk da ñëw King Fahd Palace donc euh, la table c'est à 500000 et ticket d'entrée bi 50000 la c'est une soirée de gala. Euh, boo xam ni Pape Diouf d'ailleurs bi ngeen invité tey ndekki moo koy animé. Ah, waaw Pape Diouf mooy tëgg soirée de gala bi. Mhm. waaye terewul aussi dafa am panel le matin. parce que xam nga on va joindre l'utile à l'agréable am nañu des panels parce que on attend plus de trente chefs d'entreprise étrangers venant des États-Unis venant de France d'Espagne d'Allemagne ñoo xam ni dañoo bëgg a ñëw dañ si kumpa Sénégal bi ñu liggéey ñu ne Diaspora Awards dañuy def waxtaan ci l'expertise de la diaspora pour l'émergence du Sénégal ñoom dañoo dañuy ñëw ànd ak ay kàngamu sénégalais bokk ci journée boobu ñu tuddee panel journée boo xam ni vraiment journée de réflexion la pour xool le climat des affaires au Sénégal les conditions d'investissement au Sénégal. kon daal rendez-vous le Euh, décembre bi mu nekk mun na fan leen fan lay amee ngeen ne. Euh, King Fat Palace incha allah rabbi donc loolu daal mooy événement ñi nga xam ñooy diaspora bi. événement sénégalais de la diaspora. yéen li ngeen di prôné mooy euh, retour jour fii ci yeewu leen dañ koy dañ yi nga xam ñi ngi à l'extérieur di wane seen bopp te yéen li ngeen def lu am solo la en tout cas ñi ngi leen di lan mooy comme ni koy waxee rek lan mooy sa dernier mot mooy xanaa jaale ñi nga xam ni dañoo des ci géej gi mhm. sunu mbokk sénégal yi nga xam ni dañ doon mbëkk mhm. euh, barça barzaq vraiment muy lu ñu metti trop te ñun dañ koy prôner dañ koy vraiment lutter contre ça donc vraiment di lancer un appel à tous les Sénégalais de la diaspora plus particulièrement les Sénégalais leen inviter le 27 décembre incha allah au King Fahd Palace vraiment pour fêter l' excellence. avec kon mi ngi noonu euh, Sénégalais de la diaspora bi le 27 euh, décembre King Fahd Palace mu nar a nekk euh, première édition diaspora awards mu nekk lu am solo lu nga xamante ni Mamadou Fall ak moom mi nga xam ne moo jiite président du collectif des cadres de la diaspora Pape jour boobu Pape Diouf mu ngi invité foofu sa salon boobu mooy koy mooy mooy mooy salon bi de salon bi de nooy na nepp Mamadou Fall euh, Amadou Fall euh, moom sama xarit la depuis très très très très très très longtemps euh, di jàmbaar comme étudiants yi nekk bitim réew rek da nga si gis ñu jàmbaare ñoo xamante ni buñ